cant ak ngërëm ñel na leen ami internet de 24 actu yi safoo xibaaru 24 actu yu bàkk ba jib na ginnaaw bi couvre-feu bi jàllee ak lii di état d'urgence bi gis nañ ni agresseurs yi tàmbali war nañ seenug liggéey ca pont de l'émergence bu Grand Yoff ba police bu Parcelles Assainies yi daal nay teg loxo lu toll ci juróom-ñaari nit yu doon jéem a agressé ay nit ci juróom-ñaari nit yooyu nag seeni at mi ngi toll ci diggante fukki at ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki at ak juróom élément commissaire Thierno Diop yooyu lee doon amal ab saytu ba tey buñ sukkandikoo ci journal bi délinquant yooyu nekk ci alentour bu pont de l'émergence ak bu stade Léopold Sédar amu ñu benn pièce d'identité te amuñu benn kër boo xamante ni fixe la kon nag ba tey ñi ngay ñaax ñi nga xamante ni ñoo dëkk ca alentour yooyu lee ñu dalal seen xel ndax police yi def seen kéem kattan ba ñoo ñooñu leen di agresseurs yi dootuñ fa amati benn yoon accès di fa def yooyu leen njuuj njaaj ñu wéyandi ba tey ca diwaanu Saint-Louis la ñuy daal di jubal yi la ñu fa fekk rek mu di police bu Saint-Louis moo daal di teg loxo lu toll si ñaar fukki nit ak juróom-ñeent yu duggoon ci gaal yi ngir tukki di def li nga xamante ni moom la ñuy woowee émigration clandestine xale yooyu nag dëkk yi ñuy bàyyi ko mën nañ ko jàpp Rufisque la Touba Bambilor ak Kébémer Tiwaawoon ak Mbour buñ sukkandikoo rek ci quotidien bi di enquête xam le ne ni xale yooyu la jamono ji placé nañ leen en garde yi vue ndaxte bu ñu fàttalikoo rek lii di émigration clandestine nekk na loo xamante ni dañu koy tere kon nag xale yooyu la dañu doon jéem a tenté ngir dugg ci gaal yi mujjewu te yemm ndax police bu saint moo leen daal di teg loxo ñu wéyeen ni wax lu jëm ci wàllum société mu di affaire yu Mamadou Diop ISEC ak Dieyna Baldé gis nañ ne nag yëf yi ma ngay gën di jaxasoo jëm ci njiitum patron wu groupe ISEC bii di Mamadou Diop ci fàttali rek boobee ba léegi mi ngi bëgg ñu may ko li nga xamante ni moo di liberté provisoire waaye ba léegi nag nanguluñ ko ko moom Mamadou Diop ISEC buñ sukkandikoo rek ci juge bi li nga xam ne moom lañ ko jàppee woon moom Mamadou Diop ISEC moo di détournement de mineur pédophilie ak li nga xamante ni moo di corruption de mineur Mamadou Mamadou Diop nag ñu ngi ko tegoon loxo niki fukki fan ak ñaar ci weeru mars bi ñu génn ca prison bu rëbës ñu bàyyi rek ba xam fu yëf yi di mujjee ak bëgg-bëggam boobu lee nga xamante ni bëgg na ko ma Mamadou Diop ISEC ba léegi nanguwuñ ko ko may mu di liberté provisoire ci mbirum sàcc boobu lee di wuyoo ci turu Ibrahima Touré mu doon jéem a sàcc li nga xamante ni moo di benn Range Rover bu mbër mi di Eumeu Sène mujjee ñàkk bakkanam ca gendarmerie bu mbaaw ginnaaw dóor yu métti yi ko ñaari garde yi Eumeu Sène yi daal di def noonu la ñu leen convoqué ak seen njiit lii di Eumeu Sène ci noonu la ñu daal di bàyyi ki nga xamante ne nii moo di Eumeu Sène enquête ba nag ma ngay wéye ni ñu ni rek ba xam ñaari élément wu Eumeu Sène yooyu lee fan la ñuy mujjee ak mbile jombe ñu def Ibrahima Touré ba mujjee cee ñàkk bakkanam ñu jeexale ko ak naqar bu tiis bu dal ahlu làmb mu di Jules Balde Junior moo daal di ñàkk bakkanam ginnaaw feebar bu yàgg boo xamante ni nii amee na ko ba sax ñu jàppale ko mu daal di mën a faju ba sax mu loolee mujje wuta am ba ci noonu nag ci la daal di ñàkkee bakkanam ak feebaram boobulee ñi di ko jaale Ama de di ko jaale ëhlu làmb yëpp di ko ñaanal yàlla suñu borom xaare ko ci aljana ya gën a kawe lii rek moo fi ruusandi woon ami internet yi dig daje ba ëllëg ak jàmm